fukki fan ak juróom yi muy nisfu saxbaan guddig nisfu saxbaan xéewal yu mag yu tedd yoo xam ne sunu boroom xamaloon na ko yonent bi alayhi salaatu mu yeggee ko jaamam yi mu ne képp koo xam ne jug nga ci jaamu ci yàlla donte ne benn rakkaa sax lo ñaan sunu borom sunu borom dana la ko nangul lu gudd gogu sunu borom du ci delloo ak ñaan jàppe bisub yermande la bisub xéewal la bisub njëggal la day wër wo xamni mbolem li ngeen def li nit ki def ci atmi yépp ci lañ koy dajalé dem wan ko sunu borom tabaraka taala mo bëgg nak bu ñuy wané samay jëf fekk ma ci koor alaykum wa rahmatullah mbokk juliti kon ñu ak si njariñu nis bu shahban ren muy nekk samedi 19 mars 2022 bi muy bés bu bari njariñ si bës bi ak si guddi gi yëpp njariñ yoo xam ne rek foo ko takk rek weesu na ko kon vidéo bi su loolu lay aju ñu sax képp ko si jot rek mu jottali ko keneen ki ngir ñëpp mën see jariñ ñu bàyyi leen ngeen teewul wasalaamaaleykum wa rahmatullah bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mun ci doon nga mën koo njëkk am guddig nis ko sax daal xéewal yu mag yu tedd yoo xam ne sunu boroom xamaloon na ko yenent bi alayhi salatu wasalaam mu yëggee ko jaamam yi la ci jiitu nag mooy guddi ga guddi ga guddi nisfu saban nag mi ngi tàmbalee ci bisi fukk ak ñeenteel ba rek timis googa noona bu si fukk ak ñeenteel ba buy jeex timis googa ca la guddi gi tàmbalee ba ci xar-xaru fajar ga waaw loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax mu ne képp koo xam ne jug nga ci jaamu ci yàlla donte ne benn rakkaa la sax loo ñaan sunu borom sunu borom dana la ko nangul guddi googu sunu borom du ci delloo ak ñaan jàppe alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne sunu borom day tëj juróom ñaari bunti asamaan yep am malaaka mu taxaw naan seen borom day nee kan mooy jéggalu sunu borom ci boppam di wax ne kan mooy jéggalu ma jéggal la ana kan moo am aajo ma fajal ko aajoom jooju ana kan moo amee ay bàkkaar lu bàkkaar ya rëy rëy mu bëgg ma jéggal ko ana kan moo am tawat mu ñaan ma jéggal ko ko teggal ko tawat ana kan la aw wërsëgam néew mu ñaan ma ma yokkal ko wërsëg woowu ndeysaan mbokk yi gis ngeen bis boobu benn bis guddi googu genn guddi la rek ci at mi muy guddi nisfu saabaan nga xam ne fi timis gi duggee ginnaaw boo julee timis ba noppi ba ci xar-xaru fajar gi lu fi waaye ñaan sunu borom nangu bude ku néew wërsëg la bo ci julle ben rakka wala ñaar wala lo man ci jaamu yalla mo xam salatu ala nabi la mo xam istighfar mo xam basmalatu mo xam mo xam lepp lo xam na lu bax la mo xam joxew ñam la nga def ko talal say loxo sunu torox lu ci kanamam ludul ne rek nga def nga lu ci kanamam ñaan ko sunu borom nangu sa ñaan bala ta nga fay joge guddig ni su chamban ñi tamu nak ku ci jang ñet yasin yaasin bu njëkk bi nga ñaan yàlla may la gudd fan nga bañ bokk ci ñuy faatu ci at mi ba ñaareel bi yàlla musal la ci balaa yi muy wàcc ci at mi bu ñetteel yàlla may la wërsëg bu doy sëkk ba doo soxlaal kenn dara ndax dañoo wax ne guddi googu ci la yàlla yi séddale wërsëg yi ci at mi ñi nar a faatu it ci la koy atte ci at mi balaa yi muy wàcc ci at mi it ci la koy wàcc kon motax ñu taamu lool ku ci jàng ñaan yi ñetti yaasin yi waye nak nga tek ci ñaan gi allahumma ya manni wa la yumannu alayhi ya dha jalal wal ikram ya dha tawl wal inam ya man la ilaha illa anta ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وما من الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك سقاوتي وحرماني وترضي وإقطار رزقي وثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك خلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في الليل النصف من الشعبان المكرم التي فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم اكشف عني من البلاء ما أعلم وما لا أعلم واغفر لي ما أنت به أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم li muy firi mooy yàlla mi nga xam ne yaay xéewale ñu war laa sant waaye yow kenn du la xéewal yaay boroom màgg gi yaay boroom tedd ka tey terle yaay boroom xéewal yow rek yaay buur kuy wóoru na wóoru ci yow kuy làqu yaay ab làqutukaay ku ragal na ñëw fàttu fi yow dal di mucc maa ngi lay ñaan bu fekkee ne da ngaa bindoon ne mii sab jaam laa boo xam ne day texee di maanaam day ñàkk texe ñu dàq ko ci yërmande xañ ko yërmande xatal wërsëgam ba wërsëgam xataxat bu fekkee li nga bindoon dama lay ñaan nga far ko ci sa mbaax ak sa ngëneel daal may saxalal nag safaan ya muy saxalal ma ak texe ak barik yërmandeek wërsëg dëppale maag mboolem lépp lu baax ndax yow yaa wax ci sa alxuraan ji sa doonante jottali ne yamxullaahu maa yashaa'u wa yuthabbit am na loo bind ci alluwa jala soob loo xam ne bëgguwoo ca ne duma ko far bu la neexee far ko bu la soobee bañ koo far loola tax ma lay ñaan su fekkee da ngaa bindoon ne man sab jaam laa buy texee di bu ñuy xañ yërmande bu ñuy xatal wërsëgam faral lool bam mu set te bindi ne sama jaam bii kuy texe lay doon ku ñu musal lay doon ku ñu yaatal wërsëg lay doon ku ñu dëppaleeg lépp lu yiw lay doon ñaan gi nga dégg léegi ñu weesar ko mu bokk ci ñaani cosaan yi sëñ bi da ko woy bu ko sëñ bi woyee ma nga tàmbalee ci yàllaahu dal man ni lazi laysa mu man alayhi bi biyaa kon ginaaw ba nga xamé né jang nga ñetti yasini ñaan ci li ci wara ñaan ak ñaan bi nga xamné mo ci top amna tamit leneen lo xamné ay tuyaaba la rek lay yok su nekké ci xasida yi ñu ñëkke ci xasida yi xam ngeen ne xasida ixfas xasida gu am doole la ci walu karange jang ko ci tamit ci ki nga xamné dafa bëgg karange lu ci am solo la xasida garab bi nga xamné ne xewal la nga karange tamit mën nga ko jang su la neexee nga jàng ko ba quatre vingt dix fois lu si am solo la ba tey astaxfirullahi bii nga xam ne xasida ak njëggal la képp koo xam ne jàng na ko ba mu jeex rek bakkaar bi mu desee mooy di ki sàkk ndax yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram wala déet ba tey xasida yi di mawaahibu ak wakaana xaqan nga xam ne xasida yi xéewal lañ te ñu defoon ci ay waxtaan soo xoolee si vidéo yi di nga ko gis ba xam ni ko mën a utiliser sura yi nga xam ne nekk na si loolu nag mooy xasida yi nga xam ne moom lañ leen proposé su nekkee si alxuraan xam ngeen ni ixlaas saar bu gàtt la te bari njariñ waaw ndax ñett yi rek ñetti ixlaas rek kaamil lay lay lay tollool kon loo si def si guddi gi rek daanaka du doy falaxe ak naas tamit ay saar yu am solo la si mën a musal nit ki si nit ñi ak lépp loo xam ne mën na koo loor ba ayatul kursiyu ak fatiha nga xam ne fatiha moom mooy saar bi nga xam ne jullit moom faw mu mokkal ko ndax ku julli rek da nga tari fatiha kon fatiha lu am solo la waaw lim boo ko def rek day baax rawate na nag comme lim yi nga xam ne mooy 41 wala 313 wala 100 waaye boo ko def rek baax na suñ jàllee nag si li nga xam ne jàpp nañ ne moo ëpp njariñ si lépp si ki nga xam ne day soog a door te daanaka du mën a toog lu yàgg muy salaatu ala nabi xam ngeen ne sallallahu ala muhammadin salaatu gu yomb la te defoon nañ ci waxtaan mën ngeen dem xooli ko waaw ba tànn si lim bi nga xam ne moom ngeen ko bëgg a def ndax salaatu am doole la rawatina nag salaatul fatiha nga xam ne képp koo xam ne jàpp na wax ko rek yàlla jéggal koy bàkkaaram te salaatu googu moom njariñam jéggi na dayoo ba tey tamit ñu teg ci istixfaar mooy jéggalu yàlla waaw limu 1947 boobu tamit defoon nañ ci waxtaan di ngeen ko mën a yër ba xam kon loolu la woon ci proposition yoo xam ne def nañ ko mooy guddi goo xam ne nag war nañ ci profitoo lu baree baree bari rattrapé yu baree bari ndax ci guddi googu la yàlla di yéegal jëf yi kon su ko yéegal suñu fekkee ñu def lii mooy jëf yu mujj yàlla mën na dogal mu su nangoo yii rek nango yépp waaw jéggal na suñu bakkaar kon ñu bayi len ngeen concentré wu si yoy ñu len wax ak ñi nga xam abonné nañ eh, yàlla baax na mën nañu commenter vidéo yi ndax day tax chaîne bi gëna mag day tax YouTube gëna proposer contenu bi ak yeneen murit ak ñi nga xam jottu ñoo abonné nak ñu len ñaan ñoo abonné rek alaykum wa rahmatullah bul fàtte cliquer ci abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ doon nga mën koo njëkk am